ministre conseiller Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma wax ni kon kenn du ko jiitu ci waar wa clinique ndey bi mu ko doon amal fii ci dëkk bu sell bi àndoon ak délégation bu am solo demoon ci gare routière bu bees bi Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma di wax ne ndokk ba nga xamee ne président Macky Sall bi muy wootee am mbale waa Touba naka jekk ñu nga ca woon na. waaw li ñuy jiital mooy ay ay kaddu cant cant yoo xam ne cant gu yaatu lay doon. tàmbale ko ci commandement territorial bi ak monsieur le maire mi nga xamanteni aussi def na ci liguey bu rëy bu am solo Serigne Modou mi ngi ni taxaw parti bi kenn desul góor jigen mak ndaw xale ñëpp dik nañu ñëpp ñu dajanoo fi def liguey bo xamné liguey bu am solo la and noko nek ben ba tax ñu mëna réussir li nga xamné ne lañ fi def ànd ko aussi ak transporteur yi nga xamanteni ñom ñom ñom wata won kon muy lo xamanteni bi lu am solo la loolu nag buñ ko réussir nii aussi ci Touba warta bett kenn ndax fi kenn ku ne xam na ne alxames ju nekk nit ñi dañuy génn spontanément di di bale dëkk bi loolu nag ci ndigalu xalifa général des mourides lañ koy def kon foog naa ne cant gi la ci jiitu moom moo ko moom ki nga xam ne moo ko fi teewal aussi di sëriñ Xaadim mi ngi foon ci mi ngi foon ak ñun ndoog ci suba ba léegi kon foog naa ne bu ñu amee ndigalu sëriñ bi am jàppaleeg président de la république foog naa lu ñu bëgg ci ak cet ci réew mi danañ ko am te foog naa Touba gii lay départ na waa tubaa ñoom ñu ngi ci woon démb euh, tey soog a ñëw te ñi nga xam ne ñoo ŋànk dëkk bi euh, ñoom ñëpp taxaw nañu wane seen pas-pas wane seen volonté wane seen takku ak seen en tout cas ànd ci li xamante ni moom lu président bëgg ngir li nga xam ne moom bëgg ci réew mi muy zéro déchet bi incha allah ñu réussir ko te Touba gii lay tàmbalee ndax ñoom ñu ngi ci woon kon buñ ci jàppee sëriñ mi joxe ndigal président jàpp ci foog naa loolu danañ ko am te su boobaa Sénégal gépp aussi foog naa danañ ci danañ ci roy ndax Touba royukaay euh, la le le war a lekk. beneen bi itam <clears throat> moo di ñuy profité ci li aussi gannaaw bu ngi sant président aussi di wane également suñu engagement loolu dama ko wax ci tur ci mboolem tour parti bi yépp ci dëkk bi ñoom ñëpp ñu ngi fi teew suñu engagement ci wetam. ngir jàppale ko pour mu réussir maanaam yi nga xamante ne bii moom la tàmbali ndax dañu ànd ak moom dem campagne suñu borom dimbali ñu mu gagné kon aussi dañu war a taxaw ci wetam nag nekk ay bouclier nekk ay sentinelle pour que li nga xamante ne bii moom la yéen réew moom digg ak réew mi ñu bañ a nangu kenn di ko xajamal kenn di ko yàq ba li bëgg liggéey mu man ko liggéey moo tax ci mboolem décision yi nga xam ne moom lay jël mboolem taxaw bi nga am na ko ci réew mi ndax xam ne ñun fii moom ñu ngi ci ginnaawam ñu ci wetam te loolu dama koy wax ci sama tur di ko wax ci tur mboolem parti bi yëpp ñoom ñëpp ñu ngi seen laata ngi ni sëñ kenn desut njàppaleem ci président de la république Macky Sall Cheikh abdullah Lahad Mbacké gayne Fatma di wax ne tey jii la waalo gën a aay moom sax nag dafay faf taxaw temm ci képp ku nga xam ne da nga fas yéene xajamal liggéeyu président de la république mu taxaw temm jàkkaarloog yow. man li ma intéressé ñor ma ma nekk ci mooy di jàppale président de la république. ku war a tudd bis naa la tudd ragaluma kenn ci àdduna ndax man Serigne Touba defal na ma lépp kon du ma def kenn allusion du ma gaar waale mais liberté wér moo di ñu ngi ci wetu président moom la ñuy Dembou, démb moom la ñuy jàppale tey moom la ñuy et nous serons donc des boucliers mhm. autour de lui pour que en tout cas dara mën na ko mhm. attendre et que di bépp décision boo aussi jël au sein du parti nous le soutenons di gërëm encore une fois aussi la presse ci seen mobilisation ci travail pour bu rafet parce que lii aussi da ngeen di am cër mhm. ndax lii du affaire politique kenn moomu ko réew mi ñoo ko bokk te yéen ci réew mi ngeen bokk kon nag am ci parce que travail de sensibilisation de l'âge...

kon aussi ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous aussi le mois prochain incha <coughs> bokkoon ci délégation ay kilifa yu bare bare gën cee fës Serigne Khadim Mbacké teewaloon na xalif général des Mourides waaye ay leader politique yu mag ak yu ndaw waaye sax yu jigéen na Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma di wax ne dana delloo buum ca boy boy ba samedi bu njëkk ci weerum février.